Euh, ñun euh, deux mille dix neuf on nous a ci loo xamante ni sax ay tappale la. Hmm. ci waaw ah oui c'est évident. parce que non parce que boo xoolee le parenage hmm, c'est dommage ah dañuy dem ci ay élections yoo xamante ni yàlla na yàlla wedd ñi fi ne mais pexe yi nit xam war a mën a tappale yëpp dañ cee ne parce que le fichier électoral xamoo ko. logiciel bi def parrainage bi xamuloo ko c'est-à-dire bi ñu koy defee xamuloo ko c'est-à-dire y a tellement d'incertitudes que tu ne maîtrises pas. kon yéen par rapport foofu ngeen ko waroon jublu. no non loolu loolu nag moo tax mooy mooy FIT par exemple ak F24 yooyu yëpp ci loolu la jëm mais malgré tout 2019 dañoo dem parenage ñu téye ñu ci ay tappale yu bari on a capitalisé nag de l'expérience beaucoup même ci 2019. moo tax parrainage ren yi boo gisee coow li am ci mbedd yi ay caravane ñun nekkuñu ci Boubacar dafa indi benn formule bu bees mu ne le parrainage par voisinage c'est-à-dire que nit ki ñi lay parrainer da nga leen di xam et que ce ne serait pas des personnes yoo parce que maa ngi bokk ndey ak ñoo bokk bàyyi moo tax ñu ànd ak yow déedéet c'est-à-dire parce que ça nous de sécuriser à 99 pour cent que ni ñii nii nii c'est les bonnes personnes yi nga xamante ni xam nañ ki ñuy parrainel xam nañ lim yéene Sénégal xam nañ ndax mën na ko wala mënu ko ñun ci loolu lañ liggéey moo tax on n'a pas fait de bruit donc parrainage pare nañ ko on a bouclé chiffres yi nga xam moom la laaj ak le stock bi nga xamante ni tappale gu nguur gi mën a indi rek ñu mën a régler affaire boobu donc jàpp ngeen ni nguur gi daal mooy conseil constitutionnel. waaw naturellement ñoom la on du ñu leen sax jéem a dissocier présentement parce que nag euh, ku ñuy jiiñ yenn yi ñu fekkee la ngay jëfandikoo ay yeneen yi lu ñu la wax lu ne yow donc kon vraiment foofu moom amuñ fa benn benn benn inquiétude. léegi foo leen toll kon ci petit calcul yi négociation yi en bu guddi jotee. waxtaan wi hmm, ñëw leen jàpp ci nangam nangam. ku nekk nag da ngay bëgg a camper say position nit ñi ñëw ci yow. Mhm. donc euh, Boubacar euh, le président Boubacar Camara dañu am euh, dañu dañu xam engagement am la parce que engagement mooy ni Sénégal dañ ko war a defar Sénégal dañ ko war a defar ak doomi Sénégal yi nga xamante ni naw nañ leen ci xam-xam ak ci jikko. c'est pas un discours nouveau. non non non ma. mais da xool kiy wax ki mu doon. quelle quelle est sa particularité léegi. Boubacar. oui mooy parcours. non la do do non non la particularité de votre programme c'est quoi. ban point ngi ñu indi seen programme te kenn sañu ko woon euh, junj wala teg ci baaraam. mais non non xam nga affaire bi du ay discours. fais attention. programme laa la wax. non dafa nang programme c'est un discours parce que ab bind la nii. nit mën na tëju ci biir néeg yow suba tu fais. tu tu écris un livre ou bien un programme génne ne waa Sénégal voici un programme vous l'avez fait vous avez écrit un livre da ngay def ndànk livre bi diis na lool te gis naa Birama waaw euh, Birama li ci ah. bees laa bëgg a xam da ngay da def ndànk no du ma la bàyyi ngay disserter temps day jeex da invité nit waaw tu dois l'écouter waaw léegi parce que waxuma ak yow waa Sénégal waaw léegi particularité bi c'est pour les téléspectateurs la première particularité mooy l'engagement d'une personne qui peut rassurer qui s'appelle le président Boubacar Camara mu indi un programme avec une vision très claire. mooy lan. tabax Sénégalu ëllëg. ak doomi Sénégal waaw. waaw mooy Sénégalu ëllëg. waaw bu ñuy wax Sénégal mooy doomi Sénégal yi la ñuy ànd tabax Sénégal. waaw mais nag ci jikko ak xam-xam lañ ko teg. xam nga petit calcul yi ngay wax ni ah, dañ cee teel a génn. ma wax la benn mbir boo xam ne xew na. Mhm. en deux mille dix neuf par exemple. Mhm. booba Ousmane Sonko coow li ko topp nii. topp ko woon Idrissa Seck quatre-vingt-dix-neuf pour cent de l'opposition pensait que Idrissa Seck serait le bon candidat te mooy jàppale ji moo mooy gagné Macky Sall en réunion ce que Boubacar a dit ñu ànd ak Ousmane Sonko daanu moo ñu gënal ñu ànd ak sa Seck bi nga xam xamante ni gisuñu ci ay jikkoom ak doxalin luñ ko nawe kooku loolu mooy ay valeur c'est-à-dire nit dafay am constance ci gëm-gëm même li ngay wax nii c'est pas de petit calcul parce que ñun mënuñoo ne ci loolu. et suñu diggante par exemple même ak Yewwi Askan bi Yewwi Askan Wi bi ñu ciy génn c'était en 2022 xam nga lan moo ñu jigéen génne. xam nañ ko. lan la. local yi. waaw lan moo ñu jigéen génne. da ngeen bëggoon nekk candidat Grand Yoff. non yow amoo xam-xam. non aw ma information nga wax. waaw mooy xam-xam mooy. ñàkk xam-xam waaw léegi vas-y donne-nous bien. Boubacar dafa ñëw bi ñuy tëgg Yewwi Askan bi mu nekk ci un leader respecté bokk ci ñi nga xamante ni ñoo xalaat comment les investitures doivent se passer euh, leader yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci biir Yewwi Askan Wi au dernier moment ils on trahi ce contrat là qui les liait par rapport à aux investitures Boubacar a dit que ni mais nii la ñu waxee woon ne nii la ñuy investir. mais li ma wax ak li nga wax benn la wàllum investiture wàllum tabb. da ngay def ndax jiite grand yoon dafa nekk man bu ma àndee ak yow ñu ñu waxante ay kàddu boo waree kàddu yooyu damay bàyyi dem. léegi li nga wax ak li ma wax ana ana. ana ñàkk xam-xam bi dans tout ça. non non wax ju xam nga. sénégalais yi la ñuy waxal. bien sûr que sénégalais yi la ñuy waxal. bu fekkee da nga ne waa ji dafa nekkoon candidat ñu bañ ko fal moo tax mu bàyyi. c'est-à-dire que da ngay indi aspect bu bu nekkul ci personnalité nit ki bu Boubacar ay principe lay xeex loolu moo jar moo jar a leeral donc kon on n'est pas dans des petits calculs politiques koo xamante ni macha allah yàlla dimbali na ko dimbali goo xamante ni mënoon na ne ci benn barabam di lijjanti jamonoom. et pour preuve xoolal li mu def c'est-à-dire que Boubacar fi mu jógee nii nii nii bene nga xam ni mois de novembre bii passé la démissionné dans la douane ban réew nga gis ñuy dénk douane bi un une nationalité étrangère amul. moom lañ ko dénkoon wala moo nekkoon vice directeur bi. mais loolu mooy dénk. Hmm. vice de euh, adjoint directeur général parce que rek pour c'est pour ne pas euh, ñu mar a mën a parce que loolu yoon moo koy faral di bañ. Ah, par décret présidentiel mu nekk foofu am fa ay teraanga redressé mission bi nga xam moom lañ ko fa joxe woon mhm. bi mu demee ba war a mën a taxaw ni damay bàyyi nag doy na parce que jëloon naa ay engagement ak yéen objectif yi atteindre nañ ko là je retourne dans mon pays définitivement parce que dafa ni politique du métier donc nekku leen ci calcul newuñ ci calcul mais qu'est-ce qu'il dit Amath Diop je tiens à te préciser une chose Babacar nee na ñi bokk jikko bokk gis-gis ñoo war a mën a ànd. mais loolu rek calcul la. mooy mais non baat bi gars yi dañuy faral di la di la ci sonal sax man lool du sama problème. tuddee ko du la neex Boubacar dafa ni béy day ànd ak béy muus ànd ak muus golo ànd ak golo Boubacar nee na béy bu bëggee jàmm du ànd ak jësig. loolu kay olof olof a ko wax. très bien waaw non il le répète mu nekk loo xamante ni ci lay dox. ah d'accord léegi nag du point de vue ànd liggéey parti yëpp. si on a compris. on est ouvert ay principe ci ay principe ngeen nekk. très bien on est on est ouvert. avec tous les partis. d'accord mais li ñuy xam mooy ñun ànd ñoo ku ne. d'accord moom c'est sûr.